di nuyu waa Yoof xam nga di waa Ngor waa Wakaam xam suma su ma juun Mboora Ndar xam nga Kees xam Jogo Faas bàyyiwuma kenn maa ngi nuyu ñëpp dëkku Lebu yëpp maa ngi leen nuyu xam nga di mbokk yëpp di nuyu sumay waajur bu baax di nuyu sumay famille waa koñ di nuyu suma mbokk ñi nga ne ñëpp ñoo bokk famille papa maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp ñu samay affaire xam nga lim da ngay jum maa ngi nuyu sama gars yëpp. maa ngi lay fay di di nuyu waa Ndaayaan Popenguine Popenguine Séréer waa Kiñaabur waa Diass waa Yoof di nuyu tundaw yëpp daal lébu gi yëpp. waa Yoof waaw damay nuy waa Yoof bu baax a baax a baax. Hmm. Hmm, kon ay mbokk Jalaaw Géeraw Bargny yéen bàyyiwuma fenn daal waa Ndiassane Missirah Joal Palmarin bàyyiwuma waa Casamance bàyyiwuma ñëpp Ndour Ndour. Hmm. ay mbokk war a bëre de nga am ci loo jóge war a rétifié wu dugg ci ki nga xamante ne nag ñëpp bant bu gudd lañ koy laale lan moo la dugal ci moom. xam ne ndaanaan la rek. moom daanaan la champion la parce que kenn bëggul jël sama avance moom mu jël sama avance dama siy sant yàlla bu baax di ko ñaanal bu bis bi rek yàlla may ko wér yàlla may ma wér. Hmm. Uh-huh. bu yàlla may wér may la wér may may ko ñëpp. non combat bu neex lay doon bu saf. Hmm. amul fen waaw amul lan moo koy safal. non day saf ñaari lébu lañu di ñaari jàmbaar kenn amu si kenn du arrière koñ day saf. day saf yow doo ko arrière non du ma arrière. ñii xamuñu du waaw loolu loolu mooy yëfu góor sax loolu mooy yëfu góor quoi moom warul warul nuyu waa Yoff xam nga warul nuyu waa Yoff hmm. waaye dañ ko mere xam nga ñu mere ga ah. dafa nekk suñu grand frère hmm. buñ ko woowee wax combat waru woon jël combat bi ah, mais mais mais dina métti si moom trop barke Seydina Mouhamed yow yëpp ñu ngi koy waaj nag bëgul waa Yoff man moom Yoff dama fa yàgg ñëw mbokk rak sama rak di topp si man moo day du du ñëwati Yoff li guddi yi ñu toll nii maa la ko waxoon nag déggoo li ma ko xanaa sama rak ji topp ci man mu ngi sëy Yoff kon koñ dama fay ñëw. dañuy ñëw <laughs> loolu day neexal combat bi sax waaw parfois ñëw ñu dàq ji la. waaw mu ngi loolu du ma teree ñëw Yoff man fay ñëw Yoff dama fa am ay mbokk. waaye nag woowuñu leen Yoff fii lañ la fii lañ leen woo la 19. moo tax ma ne dina moo yàlla ne avant le bu ñëwee Yoff combat bi du am maa la ko fii nag. non na am rek. avant le avant bu ñëwee Yoff combat bi du am. man man Yoff ay mbokk. mais am na te ñaanuma yàlla combat bi dindi ko. <laughs> téléphone moo xam mais bu a war a ah, nga ne am na droit. am na droit am mbokkam yi sëram yaag ñam faam. taxaw fële ca Ndaayoon téléphoné sañ na ko. téléphoné. am ñoo xam dañuy déggante téléphoné. bu baax a baax yow. samay mbokk ñoo nekk yow. te kii mënul tax samay mbokk ma bàyyi samay mbokk yow. naa dugg yow di bëri. man mbapat mu ma dugg yow dama ko jënd. boobu de boobu man boobu man xaw xaw ma sa bëre maa ngi dégg lu mu doon def bi ñu bind kër gu mag di ñëw fa di yëngal gars yi. waaw instant booy dañ màgg. loolu taxul woon sax ngay hésité jël aw. loolu de mooy yow. instant xale yi dañ màgg. xale yi dañ màgg instant moom Dumbul bëri na moom. nga dem rajaxe ko no waaw xam nga loolu yaagul loo leen def waaw kon nag génn wala loola laalewul dara boobu ñu fa teg dama koy jël yow lépp kon nag yow yëpp ngi sa kër fekkuñu fa ma màgg boo ma màggoon jël dara soo màggoon billaahi wallaahi boo ma màggoon du jël dara léegi màgg nga boo ma màggoon premier tour lay daanoo màgg nga ñu boole leen la di ñëw yàggul dund ak yàggul billahi wala dina tàng dina neex baat sëñ Bamba pour mu naan mën na ci am lépp pare na pour lépp kii duñ ko may dara suñu grand frère la moo ñëpp xam-xam moo ñu njëkk a bëre mais ñu duñ ko may dara cent francs duñ ko may barke Seydina Muhammad wóor na yàlla ñaanu ma aw ma lu ma koy ñaan barke alxuraanu karim amul lu may ñaan si làmb ji lu may ñaan man ba ma demee ba may ñaan ki si làmb ak ma def si làmb ku def 21 combats 18 victoires ah man ñan laa bëreel. ah man ay ndaanaan laa bëreel ndaanaan laa daan. waaw kon man du ma tiit aw ma lu may tiit may ragal su ma nee tiit ma tekki sama ngeen ba bàyyi bëri. te doo moytu aw ma lu may moytu ci moom man dama bëree kele. man maay borom kele yu bëri yi. boo bañee kele bi mu andi la beneen kele. Sidi daa mel xam naa ne am na yor nay li ma gis barki démb caatoo dem ko fii man dama dem équipe nationale. Ah, dem Niger dem Burkina toj ko équipe nationale laa dem maa ngi sama six médailles ci làmba bër sa sàmm yow nangul nan la ka mais xale dafa màgg bi ngay ba ñëw yow sa man jëloo ma ko Sénégal eh, da nga soob rek naa bene laxaat Niger bëri amu fa foofu bëri amu fa bëri Sénégal la am bu dee jël dara bu dee Sénégal du jël dara billaay du jël dara bu ma bër billaay wala nga combat daanaan nga daanaan bu mag nga mais man dama mën a bëre moo tax ma jël la nag daa xaw ma bëre de yaa ma gis làmb mais daa xaw ma bëre bàyyi loolu xel bu baax nag moo tax ma jël la te billaahi tous les tous les plans kii lépp si kàttanu suñu borom le 19 dama koy a ko ëpp doole ku daax liggéey te maa liggéey te maa doole si kàttanu suñu borom incha allahu rabbi na woon na ma stade moom dama koy feesal. wax ko ko Yoff dafa am ñuy seetaanse man la ñuy seetaanse. kay waay incha allah. Yoff laa wax am na ñuy seetaanse. mais kii ni mu defee stade bi tamit si. waaw gis naa. waaw mais moom it wax na li caatu yoof non dóor mu daanu kay nee na dàq ko ci nee na dóor mu daanu mën na jàpp non ki daaxee moom bés ba la ñu koy xam caatu yoof mobilisation ki daaxee bés ba la ñu koy xam yow ñaata mbër nga dóor mu ñu daanu non bari na seetal rek génneel image yi yow génneel image yi non waxal rek génneel image yi ñaata mbër nga dóor xam nga ko yaa ma gën a xam la ñaata mbër nga dóor mu daanu yow non man dóoru ma kenn mu daanu mais si kattanu yàlla 19 bëgg naa dóor saa mu daanu muy première fois xam naa daal deux derniers combats yëpp daal dóor mu daanu de moom mii de. waaw Fale est-ce que ah, wax wax ko wuyu ko. man ku xool samay combat ku xool samay combat man daaw ay pokaar laa daan andi. wuyu ko pokaar yi laa daan andi dama ko bàyyi léegi mais pokaar dina ñëwaat si combat bi. Hmm. incha allah. kon jeex na. combat bi bu yóbboo seen arme bi nga indi ko. Hmm? xam ne man pare naa de. arme boo xalaat indi ko xam ne pare naa on naaw leer na. waaw acca jërëjëf. comme que damay jël nga sama avance dama koy ñaanal bu baax di sant yàlla bu baax a baax a baax. mais mais Tyson fi mu jëlee combat bi mu nice. non fi ma jëlee combat bi gars yi dañu ma bañ a dañu bëre bëre ak man gars yi dañu bañ a bëre ak man moo tax ma jël combat bi mais dama xam ne ndaanal la ma taanaka ci ndaanal ma jël ko kon kañ day ne. Mhm. du am dara luy sedd. bés si li jaxate bu soobee day ne. am dara luy sedd. delloo avance ba ci yàgg nga jëlaat avance bi caatu yoo xam nga lu waral lool. xam nga mat de la avance xam nga lu waral loolu seet ay mbokk seet ay mbokk moo waral lool mais mu seetu si loolu instant bañu si dara bañu ma si dara yow dafa am ay mbokk nanguwul loolu mu ñëw fii neuf heures fi la ko fekk bu jël si avance bi waaw mais sport la nag billaahi wallaahi duñ ko may dara sport la sport la sport la ku bokkul ak nit écrit rek waaw war ngeen a mën a euh, bëre loolu sport la man loolu waxuma si dara delloo avance am delloo avance déggu leen ma wax fen dara jërëjëf man maa delloo avance bi man waxuma si dara man maa delloo avance xam nga dama delloo avance bi say mbokk dan dan ma jege. jërëjëf di delloo avance man ay mbokk maa leen teel a nelaw. moo ma delloo avance bi mais xoolu si loolu du ma la may dara. te billaay dara du ma xam nga xam loolu nag man du ma si wax dara jërëjëf kontaan nañ ci yéen bu baax a baax ak lu mën a xew daal combat bu nar a metti la combat bu nar a tàng la waaw ñaari bërëkat la ñaari xeexkat la man moom xam naa ne moom bëre dina fi am le 19 xeex dina fi am ba ci combat spécial bi war a dox ci diggante Kaw Gourdin ak Ndigal foofu tamit bëre dana fa am lool ñi may woo si combat ñeen ngay woo waaw maa ngi woo ku si mel ni waa këru Ali Samba si bu Dias mhm. ñoom Jibi mhm. maa ngi leen di woo di woo suñu monsieur le maire Mansour Thiandoum Ibrahima Pouy Sarlo ma kenn ñëpp nañ ñëw si combat bi jàpp si ñoom wali mata ma kenn bàyyi Ousmane Ndour Ibrahima Pouy ñëpp nañ si jaaxa bu baax di gërëm ñi nga xamante ne ñoom laa àndal ku si mel ñoom Issa Ousmane Ndiol Baye Daouda Moot Fay noo Kassal su Issa Tambo hmm, Tambo di gërëm ñëpp bu baax a baax di gërëm si Ibnu Diop ama seen di ko woo si combat bu baax ak Koudia hmm. Koudia moom combat moom da si am bu baax ak Grand Lanjañ maa ngi woo ñëpp ku si mel ni Ibou si bàyyiwu ma kenn dañu si jàpp dañu may taxaw bu baax su ma amee combat dañu ma di woo waa ñitti mbaar bu baax a baax ñitti mbaar xam ne fa laay solo waa Pikine Pikine bi nag bàyyiwu ma kenn bàyyiwu ma kenn ñëpp nañu ñëw taxaw si kaw jàpp si combat bi. jërëjëf oui. jërëjëf Demba Ka tamit ñu ngi koy woo ci journée mu ñëw jàpp ci. waaw doomu nday Abdoulaye Ndiaye. waaw na ñëw jàpp ci journée bi jàppale Sidi. moo nag waa Atu Lamba bi. Atu Lamba ma ma Aliou. di woo ñëpp bu baax ñu jàpp ci bu baax a baax waa atu làmba ji diaspora la di woo ñëpp ñu taxaw ci bu baax aywa ngay woo man ñi may woo bëri na na mat rek jàkkaarloo caméra damay damay damay commencé yoof combat bi seen combat la combat bi seen combat la combat bu yomb la billaay moo ñu ëpp doole moo ñu moo moo doon champion mais le 19 ci kàttanu suñu bopp da daan yoof gi yëpp nañ préparé mobilisation bi xam nga parce que ñun dama war a bopp combat bi taxul ñuy entraîné parce que roi des moo tax ñuy entraîné comme nga nañ ñëw génn gën a yokk mobilisation bi ñu ngi si woo Abdoulaye Diop Sarr bu baax mu ñëw jàpp si xam nga waaw ah, Baye Seydi Laay ñu ngi lay woo nga ñëw jàpp si Père ñu lay woo nga ñëw jàpp bu baax a baax maam Ousmane Ndoye ñëwul nga jàpp si xam nga di si woo ñi xam ne ñoo ne Espagne xam nga Moussa Ndiaye borom Amérique ñëw nga jàpp si combat bi Dubun Dubun ñëw nga jàpp si combat bi xam nga di si woo xam nga ñoom Fala Ama xam nga bàyyiwuma kenn ñoom Daouda xam nga Adébert xam nga ñi ne Espagne yëpp ñu ngi leen si woo moo international mos ñu raagi suñuy combat ñëw nga jàpp si bii bii combat yoof la xam di si woo nuyu waa ndar bu baax a baax di si woo sama bokk ndar yëpp xam nga ñu jàngal kamin bu baax baax a baax di si woo waa tubaab jalaaw xam nga waa tubaab jalaaw ñu woo si waa caaray di nuyu saal bu baax zaal borom caaray xam nga di ñaan nag appel bi ñu jëm nii yàlla yóbbu ñu seex jàmm xam nga ñu appel ga si jàmm wax salaam xam nga le 19 ñu ñëw yàlla may ñu dem si kattanu suñu borom di nuyu di nuyu suma staff yëpp xam nga imnu asan taw xam nga elage bu ama xam nga elage bu ama